mbokk ñëwoon démb salaamaaleykum tey nag ndi naa leen gan gu nga xamee ni euh, mën naa ne dana nekk sax ganu ujaac yi yéen ñii dem màkk depuis 21 ans mu ngi ànd ak yéen di leen toppatoo am na ci ci mag ñi ñoo xam ne bu ñu janook moom tey daañ ne ah kii day daje naag moom ba tay ci yoonu màkk bi parce que depuis plusieurs années mu ngi nekk au service contentieux du pèlerinage à la Mecque sport bawul dara euh, c'est une grande école de la vie te boo amee boobu formation da ngay mën dugg ci nekk yëpp ba ci famille religieuse yi sport mun na la fa dugal sama invité tey bi il est judoka il est karatéka il a été président de la ligue du Sine Saloum de judo il a été secrétaire général de la fédération sénégalaise de judo il a été de la fédération sénégalaise de judo tey jii secrétaire général de l'union africaine de judo membre encore honoraire des instances mondiales de judo sama invité bi Kaolack la bàyyi ko di liggéey ci loolu ba tey jii la discipline a retenu Oumar Dangalum am na ñu fi jaar léegi ma présenté leen ñu ni ma ah, ah dama koy dégg man ko ma ngoog identité ba ngoog loolu moo di li nga xam ni moom la danga jox sport bi tey ji sport bi di ko ko delloo Oumar Dangalum qui a été directeur d'école ci plusieurs centre au Sénégal et comme l'enseignement mène partout tey jii Oumar Dangalou mi ngi ci plateau ñëwoon démb di évoquer loolu yëpp am na nag benn waay bu mu yóbbante de danaa wax tout à l'heure yóbbanteem damay bàyyi Oumar Dangalou nuyoo ba pare ñu sóobu ak moom ci émission bi. asalaamaaleykum Abdoulaye jërëjëf yàlla nag bokk fay. jërëjëf lu li ngay def am na taar boo xam ni bu doy waar la ndax. fàttaliku démb. jërëjëf. Euh, nekkinu tey rafet. Mhm. day tax am yaakaar ëllëg. ak it euh, feddil ñu ci euh, def lu baax ak bëgg lu baax ndax lépp lu ñu nettali rek lu rafet la. jërëjëf Loum te def amul dend te xam nga ko ñun ñoo xam nañ ko. jërëjëf <laughs> jërëjëf loolu daal moo tax sama xol sedd lool ci ñëw fii. nga invité ma ci émission bii muy émission boo xam ne bii lu baax rek ko tax a jóg ñu di ci taasu nag yàlla euh, di ci sant yàlla di taasu ci ci ci ci ci barke Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam lépp di doon ay ay ay ngëneel rek ak xéewal. Umar tàngalu ma ngi xajul nag ci benn émission dañuy rek récompenser dajale parce que moom ci boppam livre la Umar tàngalum laa indil tey ji 21 ans ci wetu Rawane Mbaye ah euh, euh, rawaan bay boo dajee moom boo ko nee xam nga Umar Dangalo mu ne la moo set loxo euh, kon élégance baa ngi noonu et sur le plan vestimentaire et dans les propos Umar Dangalo je commence par Kaolack le judo ban année. 1969 la la ma Cheikh Omar Tall. est-ce que. takkuloo ceinture blanche. solal ma kimono. seen club ba nu mu tuddati. Oyamar yu bu Kaolack bu Kaolack. <laughs> ndax booba judo ak karaté ñoo bokk benn fédération. way way loo tax bi ma solee kimono karaté dugg ci biir fédération bi. Mhm. jóge fa yor ligue bu Kaolack Cheikhou Tall di ma tàggat di ma tàggat. Mhm. ba ma doon lieutenant. est-ce que sëkk ci koom rek. est-ce que di xaritam. di di di di di nag léppam nag. Mhm. ah muy muy muy doon ni ko xam ne kii taaram ci tappi taaram ci nekkin ak taaram ci gis-gis. doon na formateur bu wér ndax formateur moom ki nga xam ni mooy tabax nit moom du du fi jóge mukk du dee mukk wax nga dëgg ndax da ngay tabax nit mu tabax nit nit kooku ko tabax nit ba day tukki ci moom nga nekkee champion du Sénégal ci moom laa nekkee champion du Sénégal 1975 premier champion du Sénégal Lour Lour moo ma indi fii Dakar maak ñoom Ndiaye Onda ñoom Daafaan mës nga ma wax ni ma ndeysaan euh, remise u médaille ba sa benn xarit la ko jox. Euh, Garan Coulibaly Garan Coulibaly moo jox médaille ba. est-ce que keroog euh, neex naa xool. benn japonais bu ñuy wax muy Suzuki moo ko doon arbitré mhm. ba ma gagné Garan Coulibaly mhm. moo ma jox médaille bi te it digadiw ma mhm. ndax remplacé naa ko comme directeur technique comité olympique xam nga lu ma ci neex danga da nga nekk champion du Sénégal ci kimono Kaolack waa avant d'arriver a Dakar wér wér la parce que euh, généralement Dakar mooy joxe champion Sénégal. Ah. yow nga nekk que depuis Kaolack. gis nga Ablaye moo tax fekk rek am solo. est ce que li nii. am na porte bu doy waar ndax boo ñëwaat Dakar. di soow ñu toppaan way dangalu naa nga ne may leen man bi may daata ñëw Kaolack Dakar j'étais un produit fini mhm. booba sottal naa fa torkal mhm. doon naa champion du Sénégal doon seen tournoi lépp ci coobare Cheikh Omar Tall rek est-ce que moo ma tatagal moo ma encadré te alhamdulilah rabbi amina léegi de tournoi quatrième daan la. j'imagine que ba ngay jógee Kaolack Kaolack était orphelin ci sa départ parce que xam nga dafa da nga ci vitrine Sénégal depuis Kaolack. Mhm. nga ñëw Dakar ban année. maa ngi Dakar dama gagné championnat yi déwén sa ma xam ni foofa tuwaarkal la amatu lu fa def ma jóge fa ñëw Dakar 1976 laa Dakar. Mhm. mais euh, au départ de Kaolack tu directeur d'école ci yan école. école. Wélu Maodo nekkoon naa directeur d' école Wélu euh, Maodo département Gossas. waaw jàngale naa Ndiédiène jàngale naa Ngaan bu Kaolack. fa laa jógee nag door a ñëw fii. door a ñëw fii nekkoon nekkoon naa aussi inspection. oui nationale primaire voilà après da nga quitté l' euh, euh, enseignement pour l' inspectorat de la jeunesse et des sports. voilà ma jóge enseignement dem doon inspecteur adjoint de la jeunesse et des sports. oui oui. nekk SNEIPS bu Thiès. jóge fa itam ñëw ministère. dugg ci presse bi. waaw nekk bureau de presse moom yàgg ci ànd waaw <laughs> voilà télé sore rajo ñoom zone 2. xam nga tout à l'heure ci cong bi. waaw. maa ngi naan mais Dangalou mës na nekk vice président de la fédération sénégalaise de football. football chargé du marketing ci ban circonstance loolu. Euh, Ousmane Paye ministre ba moo ma ci dugaloon ndax boobu football bi doon doon joué te duñ football du indi xaalis. gradin yi du am xaalis sponsor yi daawuñu indi xaalis. man nag comme nag inspecteur la te sama xel sama yëngu-yëngu dafa màcc ci affaire marketing. Mhm. Ousmane Paye nii Ibou Ndaw Kébé ba newoon directeur de sport. Omar Dangalum bi dugal ko ci football bi. Mhm. mu jaay football bi. Mhm. bañ ko defee it Fatouar Kalla am na match boo xam ne fanweeri million ak juróom-ñeent la ci gaay <laughs> xam nga dinaa dàngalum xajul ci benn émission li ñuy wax naan li def yëpp xajul ci benn cin mm-hmm. euh, léegi daa nga damaa dellu si laaj leen mm-hmm. titre yi nga am ci diggante judo ak karaté parce que da nga boolewul à l'époque judo ak karaté yan titre nga ci am ci yooyu yëpp titre ma ci am daal euh, techniquement di ci ëpp solo mooy karaté daa ci ëpp titre titre judo nag administration bi moo ci ndax dem naa ci ba jóge union africaine de judo dem fédération mondiale bu judo mhm. commission éducation et diffusion jóge fa nekk ci commission de vétérans mhm. de fédération internationale de judo mhm. donc titre yi mooy loolu sport dafa am technique dafa am administration judo moom administration moom laa jóge ligue bu kaw Kaolack ba fédération internationale ba fii ñu wax ni ci laa bokk ci nga lekk ci laa bokk waaw su fekkoon ministre des sports dañ koy élire moom mooy nekk candidat Sine Saloum waxuma Kaolack bu ñu ko waree élire mooy nekk candidat si xëy na ci mos a àgg ah, di élire ministre moom mooy nekk candidat Sine Saloum pour la mu def ci diggante Kaolack ak Fatick en ah, propagé fa boobu discipline ba nit ñi bëgg ko ba daa nekk fa président de la ligue du Sine Saloum ce n'est pas une petite affaire ni Boubacar Dia nekk woon le père du football a mhm. Kaolack noonu la Danga nekk woon le père des arts martiaux mhm. du côté de Kaolack Danga mhm. nekk nga fi président fédération sénégalaise de judo. Mhm. yan ba diisoon na. waaw yan ba diisoon na waaye euh, xam nga lépp loo xam ni euh, euh, yaa ko tànn da nga am fitu diriger ko ndax àddina fit kese ci ne xaw ma léegi mënuma lii. Mhm. ku néew fit moo koy wax. ndax nit lu mu sóobu rek bu fekkente ni bii xam ne ni yàlla mooy dogal. du ragal fen wax nga dëgg te dugg nañ ca fotoir kan la am ci fukki at ak ñaar mhm. waaye teraanga fekk nañu ci mhm. ndam fekk nañu ci mhm. yàlla dimbali nañu ci bu baax a baax a baax tu a fait le tour du monde j'ai fait wala wala a kan la tu as fait le tour du monde avec le judo <laughs> avec le xam ne njukkal la loo xam ne yàlla moo na ko defal du leneen lu yàlla moo ko dogal toarkal la et nag jigéen ñàkkul barke yi alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax a baax loolu xéwal la boo xam ne bi bu la ko yàlla defalee daan di ko wàcc ak yow ci instance mondiale yi foo ci nekk maa ngi ci fédération internationale bu judo waaw man may représenté Afrique continent bi ci commission de vétérans commission bu bees la mhm. mooy maanaam ancien champion yi moo xam champion continent yi la wala champion du monde yi wala champion olympique yi léegi dañoo ay compétition ay championnat du monde yoo xam ne ñoo gën a xumb sax. Mhm. championnat yi nga xam ne li ñu actif yi la. Mhm. donc bu yàggul laa jóge Dubaay fotowaar kan la. championnat yoo xam ne léegi ay junni junni nit ñoo ciy bokk. Mhm. ak seen i njaboot. donc vétéran yi au lieu ñu toog rek di seetaan. léegi dañuy bokk sol seen kimono di def. ci loolu nag lay représenté Afrique comme seul africain bu nekk ci fédération mondiale ci commission boobu. mooy commission de vétérans seul africain. seul africain mooy de la fédération mondiale de la fédération mondiale. Umar Dangalum li ñuy wax naan Sénégal dagg na barkel seul africain ci fédération mondiale de judo. Danga est-ce que le judo n'est pas le sport le plus titré au Sénégal. xam naa ni daal li ci ne ci manoore. waaw ci ne ci teraanga ak barke. ci sport mhm. judo. Mhm. jar na di ko ay xale bu gudd jotee ndax ñu nelaw. wax nga dëgg. Euh, gis nga judo sénégalais. dafa doon valeur boo xam ni li mu indi ci ci ci sport sénégalais kenn mënu ko xayma. Mhm. sama mémoire yëpp inspectorat yëpp ci judo laa ko bind fa tubarkalla. est-ce que muy muy muy tool boo xam ne bii doom yi mën nañ koy gupp ba ba at day tukki Ablaye. judo sénégalais dafa doon taar boo xam ne bi du dañ mukk. wax nga dëgg loolu. wallaay kon nag di ko kañ daf ñoo daf ñoo daf ñoo soxal. Mhm. te bokk ci it. chance la boo xam ni teraanga la boo xam ne yàlla moo ko defal nii rek ci la ñu ne. Oumar Danga l'actuel ministre des sports dafa tenir en lui un ambassadeur. fan yi judo bi dafa yëngu. am na sax ñu naan du fi am fédération bis maa ngi naan ministre bi te mu jëli Danga Loum te mu jëli Oumar Danga Loum ni que kaay wax ak waa judo Oumar problème mu judo bi ban approche nga ci am. judo bi approche bi ci am mooy gis nga àddina dara jafewul. buñ ko waxtaanee. buñ ko waxtaanee. waxtaan waaye waxtaan moo ci am solo. wax nga dëgg lum. nit ñi bu fekkente ne bii judo bi xam nga kenn du ci fay kenn waaye moom lu moo leen neex ñu def judo. waaw. <laughs> bu amee problème. nañ leen ñaax ci ñu toog waxtaan lu ñu waxtaanee mu jeex. guerre yi jeex na nu coono bi jeex na ndax nit da ngay jokkoo da ngay waxtaan. Mhm. bu xelli xelli koo kër kër di taaju ñu bokk benn jotaay rek. daal di am buntu léegi. judo kaay judo lañ bëgg bu ñu toogee waxtaan gis. bën bën gis yoon am gis yoon amul ci benn problème. bu fekkee ne bénévolat ba ma nga fa. waaw bu ñu waxtaanee wax dëgg yàlla. way way ñun ñun loolu mooy su dañuy pencoo di di di di di changé rek ay idée. di waxtaanee di jegante ba lëkkaloo takk lenn. ñëpp ànd ci mu jeex loolu rek la. kon boog saafara bàngoog parce que bi ma gisee coow lu am ci judo ba ma ni gars yi dañu nañu seeti Umar Dangalou mi nga xam ne ni judo bi ñu ko doon wutal kilifa moom mooy kilifa bu permanent parce que ministre dañuy passé mais am na ñoo xam ne fa ñu nekk fa lañ leen di fekk fa lañ leen di bàyyi Umar Dangalum dafa di seexu arts martiaux au Sénégal am na nag ku ma ni bis boo dajee Umar Dangalum dafa am ku ngeen bokk yéen ñaar. muy Dexter Johnson à lui Dexter Johnson mën naa ni ci ñi euh, euh, dugal musique Sénégal la bokk da nga si aussi un mélomane dafa daan sañse ba gaañi di ko seetaan waaw ba léegi sax sañse baa ngi ci moom kii koo gis ak âge xam ni mënoon na sañse Umar Dexter Johnson lu lu lu muy éveillé en en toi Dexter Johnson star band bu njëkk ba ba ci superstar lu muy éveillé en toi Dexter Johnson mi nga xam ne maak dañ ko bokk. wér la muy suñu musique muy suñu musicien. man dama naan Dexter Johnson à lui. wallaahi. ghanéen ba. waaw. La charanga sabe mora. waaw el giro de Kantawara. <laughs> dangango xam nga Ablaye. waaw da li nga wax dafa neex ba nga xam ni. damay fàttali lu bari ndax man. musique saxophone Dexter saxoténor boo mu daan bokk waaw boo ko génnee sama sama àddina li ci des tuuti lay doon est-ce dafa doon ci la nga xam ni li tabax la bokk. Mm-hmm. ndax euh, musique day defar rek taar ak xel. wax nga dëgg. di defar nekkin. wax nga dëgg. boo ko déggee bu baax a baax a baax. wax nga dëgg te xam nga ku toog fii ci TFM bi di kër Youssou waaw li ma la wax mënees na koo dégg. wax nga dëgg. musique dana defar nit. ba xam ne koo gis naw ko bëgg ko fa torkal la mhm. tey dafa jikko lépp Dexter ci ñoon la bokkoon Dexter Omar foo gis foo jëkkee gis a Dexter Johnson Dexter Johnson maa ngi jëkkee gis a Kaolack est-ce Dexter dama daan dégg musique am mu mel ni ci asamaan si li tëggee xaw ma lan la. est-ce bi ma jëkkee dem bi mu jëkkee ñëw Kaolack. beggu saxoom nag benn la. benn la beggu saxo Dexter Johnson amul feneen. ak phrase yi ciy génn phrase musicale yi mu daan génne ak syncope yi kenn Dexter daal. waaw doy na waar li ma wax ni wóor na ma ni kilifa yu bare ngi toog di ñu déglu. Mhm. lii sax sama xol mi ngi ñoom. est-ce que. ndax it et puis et puis et puis noonu la dañ daan jàng bu jàng jotee football bu football jotee. et puis baal bu baal jotee xale day fo pour su magee mën toog. man toog te loolu yëpp nag du dara dul taar. Mhm. taar bu wér boo xam ne bii. wax nga dëgg moom lañ dund. alhamdulilah rabbil alamin wax nga dëgg donc Dexter Johnson à lui doon na koo xam ne kii. sëy yu bëri am na fi ñu bëri judd nañ ndax Dexter euh, moo moo lëkkale waajur yeeg yëpp donc ku noonu ci société bokk dañ ko war a sargal féete ko souveniram doy na war daal. est-ce euh, il a eu une épouse kaolackoise. épouse kaolackoise. Dexter Johnson a lu ñu bëri xamul. il a eu une épouse kaolackoise. am na benn finalu duc. Mhm. Euh, je crois, il y a eu une finale de Coupe du Sénégal à laquelle a pris part son fils. Ah, absolument, oui. son fils loolu dégg naa nga di ko wax. voilà le fils de Dexter Johnson bu bokk ci boobu finale ah, ah. de de de Coupe du Sénégal. wallaahi ma ni soo demee nga ni su papaam suñu. ñun ñëpp moo ñu musical moo ñu musical Dexter Johnson Ali mooy Khady Ndiaye daf benn bàll ko gis kaw rek xamu ñun fecc rek ñu Khady Ndiaye la sœur de Ngolo international voilà voilà mooy football voilà dafa gis ko rek tarkal ah, ah, la ndeysaan ah Dexter Johnson loolu loolu mooy ci ci ku dégg galat wallaahi léegi am nga sa parent bu nga xam ni maak moom il va se reconnaître mm-hmm. dañu daje mu ni ma ànd Dexter Johnson yi. ma ne ko naa la ko indi. <laughs> parce que xam na ne mu ngi ma denc. wallaay ndeysaan et puis xam ko daan yaa ca rajo ba ca rajo ba ca rajo Kaolack ñoo muy daanu rek. <laughs> la rek. ñoom seen kon dugg nañu léegi Kaolack. wallaahi parce que bi ma yegsee Kaolack ñuy démarré ji rajo ba ndeysaan Ablaye Diak daal di tànn. ñi muy yóbbu ca dëkkam pour ñu demaare ji rajo ba bi ma ñëwee dañ ñi ma mm-hmm. boo fi dee wut ku la defal arts martiaux. on va voir Oumar Tangaloum on va voir Cheikh Oumar Tall. Mhm. loolu tey jii am na 40 mhm. ans. Mhm. ñu toog tey jii maag Oumar Tangaloum bàyyee ko Kaolack. toog fii di ko waxtaanee. 40 ans après nag. su ma fàttewulee loolu. moom moo def lu kenn dul fàtte. te nee naa am na ujaaj. yu ñuy seetaan. am na ujaaj yu toog janoog moom naan kii daal am na fu ma nga xamee xam nga fu ngeen ko xamee. ci pèlerinage à la Mecque. pendant 21 ans muy ànd ak ñoom ñan nga àndal comme comme comme commissaire au pèlerinage. Ah, pendant pendant 21 na nga nekk euh, le chef du service contentieux au pèlerinage à la Mecque. ànd naa ak yoo xam ne kenn du ko fàtte. sama sama sama sama. Alaaji Rawaan Mbaye. Rawaan Mbaye. moom euh, mënoo ca daal doy na war daal. waaw waaw Rawaan daf la marqué. Alaaji jusqu'à présent Alaaji Rawaan Mbaye. ànd naa ak euh, Cheikh Diane Cissé ànd naa ak euh, Moustapha Guèye. Mhm. ànd na ak commissaire Thierno Ka. oui ànd naa ak commissaire Diakhaté. Mhm. ñëpp fa tubarkalla ànd nañu dem Makka macha allah. est-ce que loolu yëpp nag muy taar boo xam bii. taar spécial la bu yàlla defal nit. man mi fekk naa la ca hôtel Bourkhane. wax nga dëgg. ngay jël bagage yi di di wax jëlee leen ma bagage yi teg leen ma ci ci ci ci pesage bi. wax nga dëgg ngay peser bagage. wéer ma laaj sama bagage. wala <laughs> wax nga dëgg wax nga dëgg maa ngi fàttali ko commissaire Mansour Diop. wax nga dëgg xam nga loolu. liggéeyal ujaag. amul dara lu ne ci kaw. est-ce que. mooy li nga xam c'est sa moom c'est le dem julli ci kaaba gi amul lu ko gën a barkeel amul dem ji rawdu góor gi mhm. macha allah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam et puis di dimbali na ko jaaj wax nga dëgg xam nga loolu chance la boo xam bi bii ak teraanga joo xam ne ji mhm. yàlla rek moo koy defal nit alhamdulilah rabbil alamin tàngaluma ngi nii de champion du Sénégal de judo président Ligue Sine Saloum de judo. Mmh. Secrétaire général de la Fédération sénégalaise de judo. Président de la Fédération sénégalaise de judo. Secrétaire général de l'Union africaine de judo. léegi ma nga ca Oudiathia di leen peser bagage ñuy jaabante diggante Makka ak Médine diggante euh, Jidda ak euh, Ndakaaru nga def loolu ñaata at. def naa ko daanaka daal. 21 ans daal 21 ans 1994 ba 2010. ba 2010 léegi de xam nga yoon wi léegi de. Ah, léegi léegi yoon woowu mën nga ci def loo xam ne yow yaa moom. waaw léegi moo tax boo xam ni. tu dañuy yóbbu nit ñi mag. ah tu vois Adjaratul Aswad. est-ce que. waaw structure privée la boo xam ni. dañuy dañuy yóbbu ñi màkk ku ku ñu kii rek ñu yóbbu la màkk. sport baa ngi nii. wallaay wallaay gis nga de. Mhm. ki ki ni woon c'est la plus grande école de la vie. Mhm. moom le sport juumul parce que Oumar Dangalum tout à l'heure euh, euh, sama rakk ji Ndoye mm-hmm. ci rajo bi ak ak ak mimi mi nga xam ne moom lay àndal ci émission bi bi ma leen présenté dañ ne ma kii mooy Dangalum mm-hmm. dama koy dégg rek ne que sportif yi dañu am notoriété bu mm-hmm. politicien di gérer loolu bu doon jaay ñoom ñu jënd ko mais du jaay waaw du jaay mi ngi mi ngi rek ci fu nga xamee ni da nga koy liggéeyal nit ñi léegi léegi Oumar boo doon retracer sa carrière ñuy waaj a lan moo la marqué ci li nga def de Kaolack à Dakar de Dakar à la Mecque ci pèlerinage bi lan moo la ci marqué. li ma marqué rek mooy jëw bi ak ak ak ak ak nga toll ci nit ñi. jërëjëf jërëjëf nit ñi dañ lay dañ lay dañ dañ lay sargal. nit ñi dañ lay bànneexoo. nit ñi dañ lay ñaanal di la gërëm. est-ce que ci loolu nag ki ko indi mooy Cheikh Omar Tall moo ma takkal ceinture moo mhm. mhm. ko defal mémorial. dafa génn àddina. Mhm. danañ ko a ci bokk. Sénégal yëpp. muy le samedi 10 mai incha allah feet la boo xam ni entrée gratuite ñëpp ay teraanga la joo xam moom la ñu terale Cheikh Omar Tall. ci nga xam ni moom la yàlla dimbalee ñu mën a wax. Sénégal yëpp li nga xam ne Cheikh Omar def na ko bàyyi ko fi dem Barsàq. am na rek ku ma ni Nil Dangalum Kaolack la nekkee champion du Sénégal. Mhm. kimono kaolackois ca la nekkee champion du Sénégal. Mhm. tey jii euh, euh, jeune Kaolack yi dañuy séenu. Mhm. Euh, béréb bu nga xam ni yeneen Dangalum. yeneen Cheikh Omar Tall dinañ fa génn loo ci wax noonu. incha allah des na ko def. parce bu soobee yàlla. ni ko Yékini war defee ca Joal. ca Joal. ah ni ko ni ko ni ko Khalifa Diouf. wallaahi. dafa ca ca Mbour. ma dàngalum yaa bëgg Khalifa Diouf. waaw lu di di di di di di gagne Rachwan. Rachwan boobu maay président fédération sénégalaise bu judo. déggoo ma ni la. Rachwan 1 mètre 95 nit ñi ndokkeel. 162 kilos. Khalifa Diouf da daane. daabo keroon la bi gaañu. waaw keroon la jëkkaam seen kopp xol bi taxaw. ñu yëngal ko tuuti yóbbu dispensaire. te au Caire. au Caire. Farache wan dëkk. Farache wan dëkk. maa signé kayit gi tax defal ko. bés nekk ci xol. parce que yor na ko fukki at ak juróom-ñett keroog ba Sénégal ak. ci Alexandrie. Alexandrie dañoo égaliser ca la gaañoo. waaw ci Sénégal bisu Sénégal Guinée la Amara Dabo gaañ. la gaañ. ndax Sénégal dafa égaliser rek. mu mu foofu lañ ko yëgee bi Sénégal di gagné Guinée 3-2. wa jeex en quart de finale. voilà en quart de finale lii kon xam nga yooyu yëpp ay. yow da nga yow yow danaa la wax luñ may wax. wallaahi man léeg-léeg gars ñi ma laaj sama livre mais yow it sa livre bii. de mi ngi ñëw mi ngi ci Samouraï Noir. <laughs> war nga bind livre ma maa ngi kay ma maa ngi. Ah, nat yow war nga bind livre. wallaahi loolu la wax toujours. mu xam nga si livre bi lu mu koy titré. wallaahi de Kaolack à la Mecque. wallaahi wallaahi. Ah? <laughs> du sel à la Kaaba. waaw yow vraiment war naa nga loolu. fa toor kàlla. looy tàggoo. tàggoo rek sant yàlla rek kontaan rek sant yàlla mu mu bàyyi ñu fi rek ñu ñu ñu ñu ñu def lu baax rek di ko nisër di ci nekk di di di tabax xale yi pour ëllëg gën a neex rek. est-ce que wallaay sant yàlla bu baax a baax a baax rek. jërëjëf tàggu nit ñi. fu ne rek na sa sa doom yi ku ciy tiiree ku yëkkita tamit ci sa doom yi. sama doom yi. généralement doomu Souleymane Lou waaw mais mais mi ngi nii moo woon mi ngi nii toog. mi ngi ci moom tamit. ah d'accord ànd ak sax Cheikh Omar mooy turandoo Cheikh Omar mooy turandoo moom laa ko tudd. jërëjëf Omar Danga Loum laa doon dalal. Euh, muy sagu Kaolack émission bi tey noonu nañ ko def Kaolack te suma ma demoon Kaolack dafa def ñëwoon démb. Euh, defe naa ni ñi may jiital ci la. xëy na nag su ma paree daal di seeti ñoom Mbaye Mati. ñoom Moussa Kébé. ñoom Alioune Diop Bata ca Sporting ñoom Joléa Tall sama libéro ba woon ci sporting ñoom ma yaay Njaay Ngolo ñoom Racine Mbaye ah euh, du jaw sama mag euh, ci sportif yooyu nga xam ne ni mu sañ jógee Kaolack ñëw en équipe nationale contre mhm. Hongrie parce que sporting amoon na boobu doole su Boubacar Dia mhm. ni Boubacar Dia mel ci football bi a Kaolack noonu la Oumar Dangalou mel mhm. ci arts martiaux à Kaolack avec la seule différence que Oumar moom dafa réussir la percée mondiale parce que tey ji mi ngi ci instance mondiale Oumar merci d'être venu woo dara est-ce que amuloo dara rek loo bëggoon wax te laajuma la ko bala maa tëj émission bi loo bëggoon wax te laajuma la ko lépp bëggoon ko daal ah sant yàlla rek <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin macha allah tabarakallah jërëjëf Loum jërëjëf Loum mbokki ñëwoon démb Oumar Tàngalum laa leen indil kii livre la waaw tout à l'heure nee naa ci émission bi bu fekkoon dañoo élire ministre des sports mën na nekk candidat mais dañ koy nommer waaw diggante ñaari nit président de la république ak premier ministre ñooy nommé ministre mais su fekkoon dañ koy élire ci mbedd bi ci ñi mën ñëw nekk ministre des sports moom mii ci la pour li mu defal sport ak li nga xame ni mi ngi ko porté yéene bi mu am ci sport Oumar Dangalum xale yi nee nañu gisuñu ko waaye dégg nañ ko loolu nag moo ko indi tey jii ci ñëwoon démb moo ko ñëwoon démb jërëjëf ba beneen ci béréb bi nga xamee ni ñi public bi di demande soxla leen gis ñu laa leen di indil ñëwoon démb fàttali mooy maam dafa sonnoon ci nasaraan garab kuy bu meññeere